ci xatam cent quarante bi ci ñaareelu xaaj bi ñi ngi tey lu jafee teqatle xam lan mooy dëgg-dëggi xaarif ak lu deme naka xutboog yooyu tey nag Cheikh mi ci wax ci kan mooy maqaama xalifa ndax xalifa moo supérieur xutbu mm-hmm. su ma xaalaw aydan alxalifatu xalifa wuutu xam nga chef d'état ki nga xam ne moo nekk de premier absent mm-hmm. ah léegi taayu président demee mu topp place ba lépp lu président noonu def rek mën na ko def mm-hmm. al xalifatu xalifa loo am na moo am na atasarrufu de supermi mm-hmm. al am gu matali lépp lépp lu xam ne ki ko nekk su te mu kii ko supporter supporter supporter doon moo ko mi ngi ko doon def moom man na ko def wal ukkum moo amee ak dogal ak saamil gu mat ak taam gu matale atte boo xam ne dafa matale fi jëmeen mamlakati ci mboolem nguur gi al nguur gi xam ne nguur ak laaw bi xalifa ak yàlla bi tey mooy yore dogal yi waaye euh, léegi xàqu dina dikk di def def kon nag ñun xam nga gis dañoo wuti nguur ak nguur ak yàlla ak nguur ak kii ministère de l'intérieur man na dikk moom loo xam ne mooy la ajuli na wax ci tur tur tur waaye ñu ne déedéet moom président ci boppam moo war a moo war a jox wax ci lii <laughs> déedéet nguur ak yàlla gi kay xalifa bi yàlla yàlla di ko waxal seen nit ñi xalifa bi yàlla mooy waxal nit ñi ah waaw kon su nit ñi déggoon xam nga lii def dañoo ñoom jël yoonu tubaab ya mais jëriñ yoonu yàlla su doon yoonu yàlla kay kee xam ne moom moo uutu nguur gi moom moo nekk ne moo yore affaire arme bi suñu wax ci loo xam ne dafa foofu moom moo koy wax ki yore réew mi suñu wax ci loo yore réew mi moom mooy wax mooy kii ah kon nag xalifa bi yàlla loolu la nekkee su ko neexee moom mën naa suppar mi lépp loo xamante ni mi ngi gën a dañ mooy ministère de l'intérieur bi nga xam ne mooy intérieur réew mi yëpp ak boo xamante ne ak force armée leneen étranger mom wax ci étranger yépp li mom ya-, yàlla dafa am ay khulafa khalifa bi nak man li mom wala amna na bi ci kem lol al amru santaane def len nangam khalifa bi amna ci dura lu yalla doon wax def len mom makoy wax wona yu tere bayre nangam mom khalifa manako denga ko nga wa taqrir ak saxal dogal na nangam mu am dogal ma naqari wa tawbiq ak yedd li ngeen def yéen a bon war leen def nii war leen def naa war leen def xamuñu nag ñun euh, euh, euh, bi maanaam régime colonial yi si maanaam maanaam tubaab yi mhm. lañ jël doxalin mhm. waa jëluñ doxalinu lislaam moom mii nga xam ne mooy xalif bi tey mhm. am na droit yëpp mën naa dogal ne nangam na am ba fa kenn gënti man naa dogal ne nangam am li ngeen def baaxul rafetul wala du ma naa cant waa góor li nga def baax wër sama bu ko neexee xas xalaasa bi ma kem naa xamante ni yaxte da nga ko sàkkoo muraadu xali xalifati lépp loo xam ne xalif ak xilaafa na ko soq sàkku na ko rek man na koo def su ko neexee mën naa yedd waaw go li ngeen def baaxul man naa sant waa waaw góor li nga def baax na man naa da nga maam ŋàññi man naa def lépp loo xamante ni xilaafa bi daf koo laaj tey lan ni ñu waxee ne bëccëg ak tey bii lim am na droit saaniyam naa li am daf kaa nekk naa nabiyan moo xam xalifa ak nabi dafa xalifa ci biir nu boobu awaliyan wala mooy xalifa ak waliya ñoom gannaaw xalifa nga daal ñu xoolatuñu nabiyu gi waliyu gi gannaaw yàlla jël na ba teg la ci place bi xooluñ ca nabiyan la awaliyan Moussa war nañoo yemoo fi seen martabati ñoom ci ñoom ñoo ci am benn martaba war a sóoru laysa loo amut xumoomul amri matak amro wana yi actré mooy délégué loo xam ne moom defuñu la xalifa bi xalifa moo la délégué mooy xam nga léegi dañuy ne xam ne rasul rasul délégué la dafa am délégué xam ne délégué délégué délégué fu ñu jëpp yëpp wala yow laa délégué tey nga demal ma euh, euh, Ndakaar wala nga demal ma Tamba loolu délégué la mm-hmm. kooku moom bu demee moom lañ ko yónni képp fa la yëm cey waay kooku moom ah, fiatalmata fa warasu wa rasulu laysa la umamul amri wa nayi illa ma samio lu may dégg na ko rek mil mursidi ku ko yebal subhanahu wa taala ku ko yebal daal la mu ko wax du ko paas man daal dañ maa wax ne ma seen li ngeen def nii bàyyi leen ko def leen nii ah lettre baa ngu nag demal demal ni ñu ko tëgee ni boo def ko suuf nii nañ ko niñ ko kii niñ ma wax daal lii la mm-hmm. su ngeen defee yéen a man daal acca nga jël lettre bi jox ko préfet ba nga xam ne mooy préfet dëkk ba mm-hmm. daal di yib yow préfet nag daal di oote réunion ne ah dogal dikk loolu moom di ko paase mm-hmm. laa yasidu ah du dolli wala saalit gannaaw jotal ko say am daara ak yom taal mooy jot am jotal joxal ma gaaya soo ko joxee gaaya amatoo loo ca yàq ma xoo nekkul moom bi saaliki ci loolu ko jotal faqat dong jotal dong lay sa bi amir duul koy santaane wanaayi duñ koy tere moom yonent ak yonent yooyu yëpp yoram nekkat moom daal ba mu dikkee wax la wax jotalam jotal wàcc na pare na ilaa an yàqoon lu may nekk nag arasoolu ndaw la xalifatan de xalifa bu fekkee nag arasoolu la xalifa xam nga doomu tànk nabi kese ak nabi rasul ak nabi rasul xalif ak nabi rasul waliyu comme li a ah, lii ku mel naka ah, daawud ah dafa nekk moom xalifa général ku mel naka adam xalifa général loolu ci lañ jàngale kan mooy xalifa yaa daa war a inaa jàll xalifatan kon nag ñun ñoo def xalifatan ah, eh, kii aadama ini eh, isqala ba kalimaka in jaay fil ardi xalifa ko xalifatu amal ko de ndare mu yonent boo xam ne yonent ah ñëpp na nag fóolu waa am na kon al martabatu ula kon martaba bu njëkk ba mooy martaba lu ko neex mu am lu ko neex mu def al wali yoo xam ne wali la ku xam ne daf wali tey xalifa aw solo mu gën a yaatu daayiratan eh, kiliftaane fil amri ci teel a santaane war nañu ak tere war ak xatte min rasuli ci ndaw alis boo xamante ne si xalifa ti nekkul xalifa bokkul wali yu nekk xalifa ëpp doole rasul boo xam ne agul nekkul ah, nekkul nekkul xalifa moom wali yu nekk xalifa mën naa def leen bàyyi leen àtte na nangam dogal na nangam kon nag kookule moo ëpp doole koo xamante ne daf yónnent boo xam ne dañ ko yónnee ko délégué rek la am waxal ma gaayee joxal ma ko lettre bi ne leen nangam ci ñibbi kii nag moo tax yonent bi wa maa arsalnaaka illaa kaaffatan xilaafa googu nag ku ca toog ca xilaafa googa da ngay nekk xilaafa kaafa nag loolu misaal wala soo ko xamul fisaa yi di ci biti misaalul malik misaalal buur al asam màgg buur boo xam mooy buuru réew mi rëy yiwaale mën naa fal aaranten min ha fii ci ay dagam warootu ba daf fii garaatoo mën a suppar mi fi jëmin moom la kat ci mboolem nguur gi moom buur mi nga xam mooy buuru nguur gi maanaam mooy roi bi man naa jël kenn te ko ci place am muy def lépp loo ne moo koy liggéey ah ci ci moom ci nguur gi ah fi jëmin moom la kat ci yi ci ay baadoolam raiyat mooy population taw kii lan muy wëkkiloo ñëw ko laa laafan moom nag lañ jël teg loolu ci loxoom ah mu daal di jaaxal ndaxte buur buur buur yi buur yi nga gis ni buur yi saa yi yow duñ xay ko kon dañu tëdd rek nelaw koy ah lekk naan ah, kii waaye xëy na li dugg biro di kii déedéet xalaat bu dikk rek ñu informé ko nangam xew na c'est bon c'est <laughs> baax na baax na <laughs> dégg nga kooku moom noonu la nekkoon man ngaa jël ko moom xalifa bi nekk roi bi jël keneen nag tekk ci loxoom mu yore liggéey moo tax moom nga dikkoon ah mu nga xamante ni mooy ah naka tey ah, buuri sow na ko déggee. doom ja moo nekk mooy yor dogal yëpp. loolu moo demee ci réewu arab yëpp. mooy moom buur bi dafa toog ki nga xam ne mooy yore affaire kooku daf ko def nag istixlaafan wala yooli du mee nga saalika wasir woo ba mm-hmm. ministère kenn du ko def place wala alama jaa mu jàll sa ñi nga xam ne ñooy kawam mooy dag ya mm-hmm. maa kaw ni ma nag naka naka ñoom nag aasamu ñoo gën a màgg indi moom min alil asiyati ñi nga xam ne ñooy njaboot gi firma tabati bu dee fekkante nag ñoom mm-hmm. sa doom yeeg sa jege bëkk néeg yeeg sa yooyu mm-hmm. ñoo la gën a màgg ci jege gi waaye nag kële gën a màgg daraja ki nga xamante ni moom la jox nag mooy wali xarit waxaasaal misaal bii misaal yad fa day jëñ maa loo xam ne yetta woo xamoo daf koy defee min soo martabati wali ci li nag li boo déggee ñu ne wali jox ko daraja ji ñu nit ñi la ah waxu dëgg waaye boo déggee ni ma la wax nii moo la gën a sa sa jaaxle gi nga doon jaaxle ci wali yu ndax man na lii wala ëpp na daraja ci ngay mën a xame nag su boobu yi wali alxalifa bi wax ne xalifa la waxuma wali yëpp de xalaa martabati rasul ci marta goo xamante garaatu ak yonent la àll si yonent boo xam ne lay sa bi xalifa yonent boo xam du xalifa garaataam waliyu ko min imlaahi alayna alaanu kon yan yàlla fayal seex su ma saal ko ma laaj xan maanaa qawli taala wa is rabbuka sërbu ba lil malaikati ci malaaka yi ini jaa yi koy def laa gis nga laaw laaw wutul xalifa de rëbb moo ut xalifa waaye laaw laaw kay xam nga ah ne xalifaab rëbb dafa uutu ci mboolem gi géej gi xalifaab laaw dafa uutu ci nekk gi ah loolu lañ uute kii dafa dikk saahiroo kam xalifaab kii na nekk euh, liggéey bi nga xam ne mooy liggéey kim ka kim kalifa noonu la lu boobu yi utee kon da ngay ki nga bëgg wéetal man la koo wéetal fenn ma ci laaw waaye nag ki ma nga xamante ni moom boo bëgg a liggéey lante man laa jëlee liggéey lu ma ci xalifa bi ñii ni utaatee kii dañu uti kii uti seen xilaaf moo tax xalifat laay ak xalifatu rabbi di nga de bañ bàyyi ko nag xalifatu wilaaya man nañ ko dëkk ñoo ko tuddee ko xalifa duma ko tudd duma ko tudd duma ko tudd <laughs> ndax <laughs> waaw xam ngeen ko rek <laughs> ah ndax nit ñi nit ñi dañoo nekk ñoo xam ne dañoo pratiquement soo waxee rek ñu waaw ala xanaa kon ñoom rek xanaa ñoom rek déedéet bi du loolu ah kuñ teg loxoom ci dara ah. tawuñ ko sa loxo ci nguur ak yàlla ah. taw nga am gàcce nag wax dëgg yàlla wax nga am gàcce kon nag waaye dëgg yàlla xalifa yàlla daal ah. ñu ne ko xalifatullaahi xalifa wul yi nag ñu tuddee ko diw sàngam rek kenn xamul mooy kan nag <laughs> wala xam <laughs> nga de kon nag waaw Cheikh indi jaay bi ak xalifa ci sol bàqar ci aaya 30 Cheikh loolu tekki rab ne day def day def xalifa fii ko de xam nga li ci gënoon euh, ci gën a kii xalifatan xalifa xam nga baat ba dinaa noome diw muy xalifa ak ab xalifa rek la nit ñi nag li tax ñu juum ñu ne ah, boo demee maa ngi koy lii benn téere boo xamante ni borom ndeysaan daf doon taal da xam naa ah, ndeysaan fii xam nga ñoom dañoo digg xalifa rek xamuñ xalifa xalifa numéro un la xamuñ xalifa numéro deux la te xalifa numéro un dañu wax ne waaw li tax am malaaka dañoo gis ndax ndax li gars yi nañ gis ne aadama yi fi yónni woon aadama yi dañ yàqoon ci ban aadama moo jiitoon aadama nañ war a seet lañ seetlu aadama su fekkoon ne benn aadama dafa jiitoon aadama bii man nañ wax ne aadama yooyu wàccoon nañ dëkk sàngam wala dëkk sàngam wala am na ay seen mbokk waaye yàlla dina rafal aadama yooyu yëpp ñu indi ñoom ci doon cercle de lañ ko àtte waaye mi nga xam ne mooy aadama am ndax aadama am àqir lañ gis lu ko jiitu ay xeex guerre guerre mondiale ak guerre yu reen rente la ci nekk la ci nekkoon dafa maa ngi nekkoon ay ceddo yi ba gi nga xamante ni moom à la fin ba mu dikkee nag yëpp daggal du loolu loolu boo dañ poussé kon nag yow yow mi nga xam ne mën ngaa firli te du te du yow da ngaa du toogoo ci ëtt bi yow nag day toog naan moo tax ñàkk a xam yàlla ak ñàkk a bokk ci asaabu cheikh bokk ci asaabu cheikh te àndoo ak cheikh xam nga dikk ci kër cheikh yan te àndoo ak cheikh yan nit ñi loolu lañ def da ngaa dikk ci asaabu cheikh te ñu tudd ci asaabu cheikh yow àggoo ci asaabu cheikh soo àndoon cheikh ci gouvernement da nga xam xalifatu ula ak xalifatu aqi lépp loo wax ko wuñ la ñu wax awalu dafa dikk pour ñu départ bi aaxiru moo liggéey ba ne waaw yàlla ah ba mu ko waxee loolu lu mu ci jublu maanaa woo cheikh na ko luy maanaa yanoo yanoo bu anhu moom xalifa ba daf koy utu fii mamlakati ca nguuram nga nguuram nga subhaana seet naa wa taala moo koy utu ca nguur ga waaye kaana fa nekk rëbb rëbb rëbb fu ilaa xam ilaa ndaxte rëbb mii boobu mooy ilaa kële nekk xalifa ndaxte yonent bu toogee alxuraan ne woo ma ñuy tere sol fa xalaat kon nag kii kon koo topp yonent rek laaw nga topp ina la si bàyyi na ko ina maa yi bàyyi na ah. laaw kooku nag mooy xalifa ab mm-hmm. waaye nag kee ne moom na ko jël nag na ko tekk ci loxo ah. kooku moom nag moom moom nag moo undat xalifa mm-hmm. kooku nag moom la tuddee xalifa turab bi mm-hmm. kooku nag fura bu waroon doxal ci moom la xam ndax rëbb moo taxaw taxawaayu ilaah bi ah. tey nag mooy taxaw taxawaayu rëbb boobu yëpp nii lañ taxawante ngir ko tante ah parlement kan bu ilaah rek kaan dafay nag xooma ali ali fatan fi ahkaami ci atte yi fu ah rëbbu nekkee ilaahan moom moo fa nekk de xalifa ci atte yi fi jëleen moom la kër ci moo leen nguur xaala wax naa aljili radiyallahu anhu fiasal ma ana ah Abdou Khadre Djilaani ñu toogaa ci seesu uh, xilaaf su boobu bi yi nga damaa bëgg lii lii fuñ ko woo ko liggéey ci ngay mën a xam waaw jiw ba muy wax lii ci ban sees la toog moom ndax te xilaafa la nekkoon dafa ne ko xilaafatu tadimini yi mm-hmm. xalifa xilaafa boo xamante ni par intérim la mm-hmm. wa amri bi amrillahi in qultu kun yakun mm-hmm. wa kullun bi amrillahi fakum bi qudrati wa amri sama ndigal bi amrillahi mooy ndigal yàlla man sama digal ndigal la in qultu ba kun yakun day nekk wa kullun képp sama kun ak kunam gi bi am rilaay sama kun gi mooy kunu laaw bi fookum kon atteel bi qudrati bi maana kon atteexal yow laaw atteexal sama doole ji ma rëbb ma rëbb bi boobu nga taxaw ci xilaafu yi nga xam ne xilaafu xilaafu boobu yi lii kon ci la ko Abdul Qaadir Jilaani waxoon kasaalika qawlu Cheikh Saroqi wax Cheikh ah, ka qawlihi ka qawli waxi ñeneen yaari eeri ay ngelaw uskuni alim biis ni naka tey ngelawal ay mu ne eh ngelaw tax arca booba dafa taxaw ci xilaafu rububiyya bi man na taxaw léegi lépp lépp corona tey mu ne corona eh corona maa la ebal <laughs> waaw léegi xaj xaj xaj boo ebal ne ko trois eh, eh, noppi mu ñibbi si waaye xaj moo tax xaj boo boo judee kër moo ne mbéw mbéw mbéw mbéw bul bul ko xaj bi de waaw rek euh, rombal xaj bi wala nga oo borom xaj waaye boo siggee rek bu la fekkee rek bu la rek xam ne xaj moo xaj moo la gën a soxla <laughs> loolu yëpp ay jàngale kay kon nag xalifa naa taxaw foofu ne yaariru uskani alihim bi ismi mm-hmm. ngelaw eh, yi daal dayal ma ana salika an hoore moom xalifatun istaxlafoo xaqoo xale boo xamante ni xaqu ko utal xalaa mamlakati ca nguuram nga taswiidan nag nag du du du jox koo xam ne par intérim mooy taswiid dañ ko maa utal par intérim kuñ ko utal par intérim naka tey ministère d'état am na dogal li chef d'état doon def loolu mooy taswiid kon nañ ko dañ ko def taswiid ah man koo xam ne dañ ko lépp nag réew mi yëpp naa ko solo wala adduna bi teg naa ko sama mhm. loolu mooy tamit aman an yafal mu def fil moom lookat si nguur gi mhm. kun la maa lépp lu mu namm mhm. wayum ah, da nga wayu malikoo ko allahu yàlla kalima tag yu laaw daf koy a baatak kun fay kun maatee xaal li si intaay waxe dara nekk rek i taan dafay nekk mi nii nii fa saasa yàlla lañ wax baata baata nguur gi nguur gi mooy kun fay kun lu mu wax rek kenn du ci tege di baat moo tax gis nga ba tey nit ñi xamuñ force nguur doole nguur koo xam doo ko sóobu moo tax ndaxte yow yaa ngi fiy jaay doole gis nga fi nit ñi buñ la rendi woon tey du tekki du génn fet ci nit ñi su ko neexee moo lañ ko jox ci pouvoir nguur yàlla mu ko yëfandiko fi mu ne nii jox nañ la koo gis ci réew mi sax arrangé wala sax dagal baat du nguur nguur ak Sénégal doo jëm kat démocratie li muy démocratie àggul foofu de li ma la wax nii démocratie àggul foofu ah kon wax naa la ko benn doyen boo xam ne ci ndar moo doon wax xam ne dafa yóbbu doyen ci yoon mu ne ko ñun poids bi yàlla bi ñu bi ñu yoon am nañ droit fekk ci euh, oto bi dañoo dañoo ragal ay forod moo ci def daaj ubbi lu oto bi nga ubbi pënu yëpp peeral nga seet bi ci dara nga acca demal man dama la seet am nga ci droit waaw léegi boo bu ngeen ñibbisee mu ne man defoon na ma koy àll ñu lu ci si jot ah doo doo day def liggéeyam ñun dañuy dañ doxoon autorité lañ xamul ñun xamul autorité tubaab bi sax tànn nañu ñoom ñoo ñu bàyyi démocratie ñoom ñu xam luy autorité waaye ñun autorité bu ñu neexee saaga ko xam nga autorité yàlla ne ah seetal ah, firaw na la muy saay saay saay ak la muy bon bon martabatun min maratibil haq ay martabaay yàlla ba ko yàlla yebale Moussa li muy am doole li muy baax ak fir ak Haarun dana fa quulaa lahu qawlan layyinan wax leen ko wax ju nooy ndax lan mu mën a fàttali ko buur doo ko gëdd ah soo sàggee sagam léegi su ko neexee jàppal xanaa xam loolu nit ñi xamul moo tax li ma jaar kon ñi jàng ñi jàng te yore ay télévision day ñàkkee buur yi kile day xool ba tax jànguñ alxuraan dégguñ alxuraan dañoo jàngi téere tubaab bi toray tubaab bi waaye buur bu amul buur bu bu baax ak buur bon bu yeboo sax bon baram bonal ah moom la yàlla jox xoir bi kon nag su ko defee boo mën buur yaa léegi day da ngay xam ne kon a ah, li tax yàlla joxam bi man est-ce que moom la wala man la ndax yàlla day tànnal jamono bu nekk ñu mën a yore li nga xamante ni mooy jamono boo da ko mën a seet waaye yàlla du jox jom koo xam ko seet kon nag lii moo fi nekk loolu wilaaya ci liñ ko jëlee kon nag koo nekk nag ci jal nga nekk par intérim man ngaa def lu la neex la buur ba doon def man koo def ci lu neex boo def kun rek rek mi nax yi xin yi waxaasaali mi nax yi burof yi ba génnee bi sóorati ca foto wa al ilaayati dafa génnee sóoratul ilaaya ci waxu ko ci ndigalu ci ndigalu nguur gi la ko waxee ah ci ndigalu euh, euh, supérieur bi la ko jëlee almoamaro xam o bil xilaafati Ousmane loolu moom mooy ndigal ba pare kaw kàddu bu mu génn nag moom mii kon nag fala yesta sa fala yesta si du mooy ali coom c'est une dara fi mu jóge amul dara nekk fi mu jóge luy mooy ndigalam gis nga liggéey loo gis mu daw nii moom moo joxe ndigal ne na na daw qaala wax na xali abi talib radiallahu anhu ana man ali moo tax ñoom ñoom ci buñ déggee ne ali mooy yàlla buñ ne buñ dégg ali buñ déggee xasaman si ne digi di di ali moo dënd <laughs> moo tax ñu nga wilaaya Cheikh Diagne bi rek nga mën dugg te xàmme boo ali wax loolu lan la mu ne ana mubariqul buruq maay menaqal menaq yi wa mura'il ru'ud maay dëndul dënd yi wa muharrikul aflaak maay yëngal ah, nguunu yi maanaam yi nga xamante mooy daw ci ah, tinari wa mudabbira maay seetlal seetlatal gis nga xam nga ah, bi ak bi ci daw météo bi buñ ko joxee buñ ko taalee amul ko ñun day loolu nag kon man maay man Aliou maay euh, <coughs> may may buntu maanaam euh, may métro bi lii daw yëpp ñu ngi daw ci man te maa koy daw ah yuri dafa nam fi ah, ci wax jooju ànd na ko ne Aliou xalifat laay xalifat laaw la fi àddi ci suuf ah, fi jëmmi moom la yi ci moo la mu ko mu bóoram nga loolu la bëgg a wax nit ñi nag xamuñ ni Aliou lii la doon su ko defee nag dagam yi nga xam ne ñoo koy daw na nga gisee yonent bi dafa jël ay dagam jël baaba jël Babacar Omar Ousmane dégg nga maam euh, Ali euh, Ali doo ba dikk nag tëjee boppam ci Ali xam nga Ali moo taxaw day day di jëm yonent boobu soo mu ne ana madinateen wa alin baabu fa kon nag kon dañ dikk taxaw pour dégg ñetti yooyu mooy jëmmi Ali jëmmi Ali ku mu dikk de ah de Babacar Omar Ousmane ñett yi bu ñu taxawee ñooy jëmmi Ali yonent bi taxaw nag da foofu di doxal waaye du yonent bi moo dikkoon doxal kanu xalifaam moo doon doxal mooy ali bi su ko defee nag kan mooy ali dëgg-dëgg boobu mooy wilaaya bi soo xam ne wilaaya dëgg-dëgg na mu ne ada madina madina wa alin baabuha da ngay doon mooy ali ay darabale ali da nga xamante ne mooy wilaaya aliyatu alawiyatu bi moom mooy yore mooy administrateur bi nga xam ne administration la loolu la bëgg a wax nag su ko defee nag yow nga toog nag waaw fekk toog xale xilaafa saa yi bi nga ne ko ah, ah, dégg nga ali xalifatu rabbi la du xalifatu nit ki xalifatu nit am na doole du Babacar du Omar du Ousmane yooyu soo xamam ni ko darajee ali dëgg dëgg dëgg mooy ñu ko xam ne ñoo xam ne ay Aïdara mooy ki xam ne def di xalifatu rabbi fii jamii il mamlakati kon nag loolu nekk ko nag loolu lañ la bëgg a ndax xam ko moom moo nekk annahu xalifatullahi fi ardi fi jamii mamlakati intaha ma ma ma am lahu ale naa la waay waaye yàlla toon ñoom ñi nga xam ne ñooy si ay ñu xamal leen lii su ko defee ñu bàyyi jël ali da ko teg place boo xam ne moo waroon toog fii te dem ba ci téeméer loolu Babacar safara la jëm Omar safara la jëm Ousmane safara la jëm Xamsa safara la jëm Aïssa safara jëm ci <laughs> la yow yow nguur ak ali gi mu ngi nguur yow nga nekk dem safara jëf te lii ko waxee safara nga jëm yow yaay jëm safara yow waaw ndax yow ali nga ne mooy yàlla léegi ah ñoom dañ ko yow lañ dama la ko defoon par intérim léegi nag sa intérim moo tax par intérim nga mën a yore sa dogal léegi nag ba ma dikkee jël sama chaise nag nga danga nga dema wëlbatiku ah, nga war a koo jël man kay ah, lii moo ko war a jël yëpp nguur nguur gi ko moom mooy teg ci yàgg ko ne ay ayam jeex na léegi nag ku jël ayam du ko jël ah waaye saa waay may li ñu jàpp nag kon nag wa mimmaa yu addi bari na li àggale kàllaama Seydina Ali radiyallaahu anhu bëri na àggale waxu Seydina Ali radiyallaahu anhu xawlu ba di ko faa lenn ci wax yéeféer yi ah ci yéeféer yi mu ne inna nii araa gis naa asamawaati asamaani asab e juróom-ñaar wal ardina ak suuf ya asab e juróom-ñaar wal xarsi ak xaras man gis naa mbool yi fi daaqila wasta daa saaki gis naa yooyu yëpp ñu ngi sama biir ba nu naa tey sama mbaq sama biir bii xam nga ñen dañ man sama biir bii asamaan yaa ngi ci sama biir mbaq gii asuwan ci sama mbaq gii xarasa xarasa sama mbaq gii ndax la ah na ñun xam ne sa mbaq sa mbaq de xam naa ne li ma xamadi xamadi man xam naa ne moom mm-hmm. buuti tënk ah ak <laughs> ak i ak i saw yooyu moom xam naa mi ngi ci mbaax moom <laughs> waaye loo ma wax ne mi ngi ci teewoon naa rek du tax de <laughs> ak cere <laughs> loolu ndekkee tey ah bonbon wala wala mburu xam naa kon yooyu oo lekk rek mu ne loolu mu ne loo tax ñenn ci yéeféeri xaala baadul baadul kibaar kibaar yi ñenn ci kilifa yu mag yi ah, ñuy wax loolu waaye nag ndax woo loolu wax loolu dégg nga kun salika maa fooqal ars laf ko mi ne sabiin hijaaba juróom-ñaari kiiraay fi kulli hijaabin saboona alfi aami kiiraay juróom-ñaar fukki kiiraay kiiraay yoo xam fukki juróom-ñaar fukki kiiraay boo xam ne juróom-ñaar fukki at wa bayna kulli hijaabin wa hijaabin saboona alfi aami waaw kiiraay bi jaar diggante kiiraay bi mën na juróom-ñaar fukki wa kullu salika mahmurun bil malaikati al kiram malaaka yi kiram bi maanaa damaa juma ne ko fa ci baar la su ko defee ñu ne waaw yëpp malaaka yi nekk na fi waxee saa rek maa faqat ijaabi sabina min min alami ruqa la ko dalee ci alami xam ne yi kay bi bi tasdidi ra'i wal wa fa kullu haulaay maxluqaat mboolem yooyu yëpp ay mbindoka ay mbindeef ay mbindaakoon nañ laa ci seen xala seen dala fan lan jawaar yi wala tooñ sax ngay wax ak ñoom mm-hmm. illaa bi taay bi wax ci mbooleem li ma lay nii ku ko wax kur ñoom xalifa bi yàlla bi mm-hmm. mën naa wax nii kur moom bu ko waxee waxu dëgg gars yi nag mën nañu jël nag lii wax da ko waxee rek waaye wax na waaye li ma lay wax képp koo xam ne wax nga lii kur ñoom yaa ngi nekk ci màkkaam boo xamante ne au lieu nga nekk kibaar yaa ngi nekk ku faar ci nga bokk léegi kon nag aani saahibal qutb bi al qutbu al qutbu moom moo mën a nekk nag lépp lii lépp li ma yàq nii mi ngi ci biir daayiratu qutb bi ci la nekk intaha yem na li nga xamante ni moom la Cheikh wax ko ñu taxaw ñu taxaw foofu de asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu